daleen ak jàmm ci ftn média chaîne bi leen fi nekkal commentaire bés bi tey dañu ci ànd ak professeur Mansour Aw historien enseignant écrivain professeur Mansour Aw jàngat tey li ñu naan système ak antisystème ñi ñuy wax itam ne ci système bi lañ bokk ak ñi naan naan antisystème professeur Mansour Aw boole na leen ñoom ñëpp dugal ci système bi ne ñëpp système bi moo leen defar moo leen produire te itam ñooy wéy di doxal boobale système jàngat na itam coowal fichier bi coowal élection yi ñi samp seen dënd ñëpp ak yéen yeneen i ponk yoo xam ni dañu ciy ànd ak yéen léegi dégtal leen ka muy jàngat bu am solo laata booba nag dañu leen di ñaan ngeen abonné bu fekkee defagu leen ka aimé vidéo bi te partagé ka ngir may ñeneen ñu mun ko gis ndax yi la jàngat bari na luñ ci mën a jàng kon ñu ànd déglu professeur Mansour Aw ci commentaire u bés ci FTN Média asalaamaaleykum euh, Fatou Thiam Ngom maa ngi lay euh, nuyu di la sant naan la euh, jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati li ñu mën a commenté barino man baatu bi ñuy génne naan anti système diw diw diw opposition radicale mais ñoom ñëpp ils sont les produits du système ils sont les produits du système et ils font jouer ils font tourner le système c'est que problème bi moo di que analyse dafay manquer souvent dafay manquer souvent ci nit ñi dañuy fab rek ay slogan euh, di ko indi li ñu mën a tuddee anti système en France euh, teg ko ci ay loxo Mélenchon amuloo ko fii amuloo ko fii euh, ni ñu fi wax ñëpp ils sont des produits du système ce sont des fils du système ce sont des filles du système et ils font fonctionner le système li li am nag moo di war nañu seet lan la bu ne fichier bi am nañu ci manqué lu war a mat wala jigéen un million war nañu seet loolu lan la loolu war nañ ko seet waaye itam li ñu mën a seetlu moo di nekk ba ñuy wax problème fichier amul kenn ci la classe politique les concernés taxaw na ci wax ci li mu ci war a wax liggéey ci li mu ci war a liggéey élection yi fi mujj xamatuma kañati la woon waaye il y avait une commission qui était chargée qui était venue de l'extérieur pour vérifier le fichier il a valider le système. Et tout le monde était là présent. Qu'est-ce qui s'est passé <laughs> On ne sait pas. te li Babacar mais démocratie démocratie pour démocratie rek c'est que la démocratie a vraiment Sénégalais koo xam ne kii xamuñu foo jugee mosuloo nekk un acteur du jeu politique mosuloo nekk un acteur de la société civile mosuloo laal ci syndicat mosuloo laal ci dara toog rekk xamuñu fi nga jugee nga ñëw bëgg a taxaw samp sa laaj réew mi ñëw taxaw di indi ay protestation ñëw di wax di yëkkati ay kàddu di teg ci gouvernement bi parce que tu as été rejeté pour des défauts de parrainage il y dafa des yomb wax nak yàgg na ci Sénégal te difi yok ndax ndaxte démocratie wax la ñu démocratie wax la ñu wax rek wax rek wax rek waye nak euh, la marche de l'histoire mom elle est irréversible la marche de l'histoire est irréversible qu'est-ce que le Sénégal a faire aujourd'hui avec ay 95 ou 96 candidat à la présidence, à la présidentielle. Qu'est-ce que le Sénégal va faire avec ça Qu'est-ce que les gens-là vont faire de ce Sénégal-là ah, Waouh Vraiment, problème il a foofu la nekk le problème est faut la nekk kon je euh, que ngi arrêté fii commentaire bi waaye nag euh, loolu moom mën ñu ko woon ñàkk wax Babacar Fall man bi ma dégloo ay waxam dama tiit parce que journaliste de loolu lañ ko laaj de de position politique boobu ak yi mu wax yépp yëkkati ko ci ay kàddu teg ko ci ndodd Macky Sall avec sa famille c'est pas ça qu'on lui demande c'est pas ça qu'on lui demande te nag li ñuy wax ci revue de presse yi même les gens de la presse l'ont souligné la théâtralisation de la revue de presse mais tu doo xam sax di ñuy wax lan la ay yuuxu ci kaw ñiy liir duñu man sax liir defuñu ko ils écrasent les mots ils écrasent les paroles da ngay déglu ils font plus de commentaires plus de commentaires que de revues de presse et les contenus sont vides vides vides mais ça dit la presse fois am un problème elle passe tout son temps à critiquer, mais jamais elle n'accepte pas les critiques. On a des gens qui l'écoutent. <laughs> Ça, c'est un grand problème. <laughs> C'est un grand problème. Elle ne peut pas passer quand même à côté de la critique, de la raison. Ni déglu, man nañu am satisfaction, ñeneen de une satisfaction, mais ils sont libres de l'exprimer. waaw nañ ko yemale foofu ndaxte bëgguñu wax Dans la presse ñu ngi ñuy dimbali te ñëpp itam bokkuñu waaye nag am na yoo xam ne yi wala ñu ko seet ci seen biir mu di formation bi mu di formation bi ñoom ñëpp ils s'inspirent plus de Pape Alé Niang bi mu nekkee Sud Hebdo rajo Sud FM nekk rajo Sud FM noonu la fa nekke woon Ahmed Aïdara jël li mu doon jël ñeneen ñëpp ku ci nekk ñëw bëgg indi sa intonation

les niveaux d'information reste faible, le niveau académique reste faible, le niveau d'analyse reste faible, et même la tenue devant le micro. nous, on a connu les premiers hommes, eh, mais depuis les, eh, les tout premiers ministres, les tout premiers ministres de la radio de la télévision, les, les masses et tous ces gens-là qui se sont succédés waaw euh, ñooñu ñëpp kenn ñi mu ci woon def yenn yi ndaxte Senghor il y veillait Senghor danaa corriger nit ñi journaliste yi Mbaye di Mbaye boo ko laajee daan loo ko wax keneen ku nekk génération boo ko laajee daan la ko wax def leen di corriger daf leen di corriger euh, ku mel nii Eh, Elisabeth Ndiaye Fat ñoo ko fàttaliku il Soxna Dieng ñu ngi leen di fàttaliku ñoom ñëpp une tenue li ñuy ni solo correction même si tout le monde était obligé d'écouter la RTS mais sans jamais croire à la RTS et ne Gabriel jean ak il faisait des d'excellentes revues de presse mais cette histoire là les gens l'ont vraiment mise par terre parce qu'il faut faire la, théâtralisation pour attirer l'attention mais le fond du message souvent il ne passe pas les gens retiennent la forme des choses mais ça c'est pas une revue de presse la presse comme ko supporter supporter supporter

voilà baax na jërëjëf. jërëjëf professeur Mansour Aw ñu ngi gërëm itam ñëpp ñi ñuy topp ci FTN Média di leen xamal ne yéen itam bu ngeen bëggee def commentaire mën naa nekk jokkoo leen ak ñun ci 76 266 67 78 FTN Média yéen a ñu fi tax a nekk te chaîne bi lee yéenay borom.